الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان على الظالمين وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بقي من الذي di ñaax صلي leen soññi الله ragal yàlla ak topp yàlla ndax ragal yàlla kat dana من jaam bi dana ko mujj saa su ne muy moytu lépp loo xam ne suñu borom dafa koo tere waaye nag comme doomu aadama suñu borom dafa am nu mu ko mooñaanee noonu mu ko mooñaanee moo tax mu jafe lool ci moom muy mucc ci ay pakk-pakk muy mucc ci def lu ko yàlla tere wala di lu ko yàlla digal te du fi bàkkaar nag ci ñaar yooyu la aju wuutee ci ndigal bàyyi euh, wuteeku ndigal ak jëpp luñ la tere bàkkaar yëpp ci ñaar yooya la aju kon ñu ngi leen di dénk di dénk suñu bopp saa su ne ñu tàggoo tuub ci yàlla ndax bàkkaar mënut a ñàkk waaye yàlla yëpp nee na moom jéggalaakoon la moom ku man di nangu tuub la kon jéggalu leen seen borom bu jéggal leen tuub leen ci moom mu nangu leen seen tuub te ngeen gaaw nit ci tuub dafa sellal ko te yàlla tax yàllarga nag mooy nga summeeku wecceeku ci lépp loo xam ni ay xeeti bàkkaar la ba pare nga rëcc ko te fas ci sa xol ni dootoo ca dellooti loola day mooy kaw mooy tuub boo xam ni tuub bu sell la tuub gi nga xam ni moom la ñu suñu borom wax ci alquran ne yéen ñi nga xam ni yéen a ragal yàlla yéen ñi nga alquran rek loola ak seddali la bokkul ak ataa bu ci doomu aadama kon bu ngeen tuubee ci yàlla rek yàlla wóor na ni seddaliku nañu dana leen nangu seen tuub boobu te bu leen seen tuub ba dana leen jéggal seen i bàkkaar te dana leen dugal aljana ëllëg aljana yoo xam ni xeeti xéewal yépp fa ne yàlla yi na ngeen xam ni tuub kat bu mën a wér mukk bu fekkee ni da nga koo yemale ci sa làmmiñ te fekk loola nga tuub yaa nga cay ñëw wala ngay wéeru di ñàkkal solo li nga xam ni mooy njuumte yooya nga def ci sa diggante sa borom ndaxte bu njuumte kenn mënu koo bañ a def njuumte mënta ñàkk ci doomu aadama waaye boo boo boo juumee nga rëccu te jéem a def loo man ba njuumte boo ko doo ca doo doo ca doo ca tàbbeeti bu charte nag ni boo juumee rëccu doo koo tàbbeeti ci njuumte mën nga caa tàbbiwaat waaye saa yoo tàbbee ci njub rek delluwaatal jéggul wax sa ci moom tuub boo xam ne tuub bu sell la fekk tàlliwuloo di dellu ci moom di tuub ci moom moom it bu tàlli di la jéggal di la faral say bàkkaar ndax moo waxal boppam loolu eh, julit nag dafa war a sax ci tuub a Cheikhul Xadim wax na ko ci anam yu bari ci ay bindam bokk ci fa muy waxe ci Jawharul ci ne bokk ci a war ci mukallaf mooy mu saxoo tuub euh, saa su ne tuub goo xam ne nag dafay ànd ak nangu ni da tuub bu yem ci làmmiñ rek te si cuwee nangu ne lii nga def bunte la tuub bu wér moo ne mukallaf bokk na war ci moom mu sax tuub ci yàlla mu jëkk nag yàlla di ko mere ndax am na foo xam ne yeggee ci def bàkkaar yegg fa ci sooxantal bàkkaar ya nga xam ne jigéen a ci yow yegg fa doyadal la xam ne moom nga tamu doon fa yàlla am na foo xam ne boo fa xol dana ancré sa xol dana sakku te bu sakkoo dootul mën a ubbeekoo ci mukk ngir lu baax mën caa dugg kon jullit dafa war sax ji tuub ci yàlla ak bu ñu ko waxee léegi tuub bu ci sart ne loola nga tuub dootoo ko defati waaye yéene ni dootoo ko defati te yéene bi dëgg bis bu la seytaane wala bakken man la wala suñu borom natt la nga tàbbiwaat ci nga tuubaat rek ci yàlla bu ca tàyyi nga tuubaat rek ci yàlla bu ko tàyyi kon tuub leen balaa yàlla du tuub ndax nag bu xasee tuub ah moo ca tuub buntu tuub ñaari anam am na ci waxtu yoo xam ne dañ koy tëjee ñëpp te bu fekkee ni talaati shams min magribiha bis bu jant bi fenkee fexee jant bu boobaa ku tuub ak yàlla du la nangu sa tuub ñaareel bi dafa ju ci kenn ku nekk yàq sa bopp ku dem ba nga xam ni ak dee di kër la nga doog a tuub yàlla dana tuub boobu du ma ko xool du ma ko nangu moo tax mu ne innama tawbatu ala allah lilladina yaamaluna sua bi jahalatin summa yatuubuna min qarib dina yàlla na muy nangu seen tuub mooy ña nga xam ni dañoo def lu yàlla bi waaye dañ koy defit seytaane leen man wala topp seen waaye ñu tuub balaa muy yàgg Aïcha nee na nag tuub balaa muy yàgg fee sukuraat dikkalu la booba yàggagul waaye nag comme kenn xamul lay dëkk bu boobaa li war rek mooy saxoo ko dëkkoo ca saa kon ña yàlla di nangul seen tuub mooy ñi nga xam ne dañoo def ab bakkaar waaye teel saa tuub feeg yaa ngi dund kii bu yeesul kon ni ñu ko waxee léegi yonent bi nee na yu xarfir feeg sakratul mawti sukuraat dikkalu ko saa su tuubee suñu borom nangul ko ko yàlla nee na ñoo ne lay nangu seeni tuub yàlla nee na ñoo ne lay nangu seeni tuub bu teg ci nangu waaye ñi xam ni dañuy saxoo jëf ay ñaawteef ji defi bàkkaar ba dee dikkal leen ñu tëb nangu inni tubtul aan léegi nag maa ngi tuub yàlla jéggal ma yàlla baal ma yaay jéggalaa kon ba yàlla nee na ñooña duma leen jéggal ñooña ak yéefar yi ñoo yem wala alladina yamutuuna wa hum kuffaar kon jaamu yàlla yi gaawtu leen tuub ca yàlla ndax doomu aadama kat yàlla nee na summa yatuubuuna min qarib qarib googa nag comme xamul kañ lay dem kañ la ko malakul mawt di dikkal kañ la koy dee di dikkal kañ la koy kañ lay yàlla di wàcce ci moom ak mbugalam comme xamagu ko kon mu nga ca qarib kon saa ne rek na jàpp ni waxtoon dikk na saa ne na jàpp ni dee dikk na kon loola dana ko soññ saa su ne pour muy saxoo tuub yéen jaam yàlla yi xam leen kat ni tuub kat dafa war war ci gaawtu tuub jar te yeexal dagal sax ci ab jullit muy yeexi tuub wala muy tàyyal tuub ndax nag loola bu ko defee xamal ni dugal na boppam ci aw yoon yoo xam ni amaana ko muy teereeg lam di ko gënal yàlla moo santaane tuub te soññee ca yàlla digle tuub yonent bi sallallahu alayhi wa sallam feddali ndigal la soññee ca yàlla nee na wa an istaghfiru rabbakum summa tuubu ilayhi jéggalu leen seen borom tuub ca moom bu ngeen ko defee rek yumatti'kum mataan hasanan ila ajrin musamman bu mu ëndiku leen yëy bi leen xéewal la mu laan daan xéewal ba keroog seen bis bi dikk kon sax leen ci tuub yonent bi sallallahu alayhi wa sallam teg ci ne yéen nit ñi kat sax na ngeen jublu ci yàlla te ngeen xam ne man mi nga xam ne yàlla jéggal na la samay bàkkaar la ca jiite la ca mujj te moom sax nag amul bàkkaar waaye yàlla jéggal na ko nee na ko loo defati baax na yàlla sant yàlla googa nag tax na ñu daan gën a yokk ay jëfam jëfam yu baax waaye di gën a sori la nga xam ne mooy wuute ndigalu boromam teel nee na bis bu ne dana tuub ci yàlla lu ëpp juróom ñaar fukki yoon am na riwaaya bu nee ne bés bee danaa tuub ci yàlla lu ma téeméeri yoon kooka nga xam ne jéggal nañu ko ay bàkkaaram am na garanti ci digganteem ak boromam dafa ne bés bu nekk dana tuub téeméeri yoon wala juróom ñaar fukki yoon kooka bu fekkee ni loola mooy xaalam ñun ña def lan moo war a doon suñu xaalal tuub ci yàlla saxaaba yi ridwanullahi alayhim am na ci ñoom it ñoo xam ne dañoo amoon garanti ca yàlla ne lu ñu defati baax na ku mel ne Ousmane ibn Affan li nga xam ni keroog xare tabut dañ koy waajal jëf bu réy dañu defoon ci joxe joxe alalam yépp ba deseetul dara lépp mu jébbal ko yonent bi yonent bi waxoon ko wax bu réy bi yooyu nga xam bu réy jooja ma barra Ousmane ma amila baad al yow te Ousmane kat li mu defati neex na yàlla amut li mu defati loo xam ni dana naqari yàlla wala mu mu muy soof yàlla lépp loo defati yow Ousmane xamal ni neex na yàlla waaye teew ca la sax ci tuub ci yàlla teewut ni sax ci di jàng alquran teewut ni sax di jëf lu baax di ko yokk saa su ne donte li mu def neex na yàlla bu dee book wala registre ba muy bind bàkkaaram lenees na ko lakkees na ko ba bàkkaar dootu ñu ko ca bindaleet waaye teewul mu sax ci tuub ci yàlla saa su ne saxaaba yu bari amoon nañ lu mel noonu ku deme ni saxaa ñu deme ni saxaaba ya teewoon xare badar yonent bi salaay sallam waxoon na ci ñoom ni wa ma adraka bi an allaha talaa ala ahli badrin فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم mu ne xanaa xamoo yow Omar ni yàlla kat mas naa yër waa Badar mu leen bu leen neex defati leen ndax jéggal naa leen lépp bu leen defati neex na ma waaye teewul mu sax ci jaamu yàlla sax ci góorgóorlu sax ci tuub ci yàlla saa su ne kon julit dafa war a sax ci tuub waaye di gaaw a tuub ci saa soo xamee ni rëcc na ba def loo xam ne defu mu del gaaw a delluwaat ci yàlla ndax ay bàkkaar nag boo ko tuubul dafay tegaloo ci sa xol di ca tegaloo di ca tegaloo ba mujj gi day mujj xol ma yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon na ni kenn ku ne ci doomu aadama yi yàlla defal na la ñaari tomb ci sa xol tomb bii dafa weex bii dafa góor loo gën a góorgóorlu ci ndigal yi gën a góorgóorlu ci sori tere yi bu weex bi day xel di màgg di yokk di développé wu ba dafay far mujjee nii di liir ba di liir ba di liir ba du amati place ci yow looloo tax mag ñu daan wax ni nit dana nit dana baax a baax a baax ba mu bëggee bon sax du mën a bonati mooy ki nga xam ne ak weexam daa mujjee mëdd ak ñuulam ba nekk ci xolam ba xol bi lu ñuy amatu ca ba def bàkkaar bu nit koo def donte da koo bëgg a def sax mooy ñooñu suñu borom di wattu comme ni ñu koy defale ay waliyoon comme ni ñu koy defale ay yonentaan comme ni ñu koy defale yenn yi ci yenn yi ci saalihuuna yeeg siddiquuna yi waaye boo nekkee ci def ñu bon lu mun la day yokk di développé di yokk di yokk ba far far lu weex la fa nekkoon looloo war a ñaan nit dana bona bona bon ba bu bëggee def lu baax dootu ko mën a defati ar raylu boobu nag la koy waral mooy def bàkkaar dañ koy tuub bàkkaar yi di tegaloo di tegaloo di tegaloo ba far muur xol ba bu muuree sab xol rek boobaa lu baax lu amatul place ci yow lu baax amatul place ci sa xol moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu waxee loola daf caa teg ni da ca teg taloo waxi suñu borom jëli wax ni kallaa bal raana ala qulubihim ma kaanu yaksibuun seen jëf yu bon seen bàkkaar yu bari dafa mujjee kaste seen xol dafa mujjee encré xol ba ba nëbb ko ba lu baax amatu fa place moo tax mënuñoo def lu baax mënuñoo dégg lu baax mënuñoo wax lu baax te mënuñoo gis lu baax ak seen i bët seen i bëti xol waaye Cheikhul Xadim dindi na ko ci ba muy wax ni wala lahu taxiru aw tasabburu بتوبة ولا يقول أصبر حتى هداني صاحب الغفران فإنها علامة الخزان مع الشقاوة ورين القلب إني أعوذ منهما بربي لأن الجام بكب نقوقو نبدو يخي أكتوبا ولدي اللي جندكو أكتوبا ولدي كل من عندكو بمو قد اسمك بمو احنا ناخار بمو الدنيا بمو الدنيا بجم مقبوغة سيغت لخلوا بخلوا بخلوا بخلوا بخلوا بخلوا بخلوا بخلوا naa xaar ba jëmmi jamono ma door a tuub ndax jëmmi jamono jooju nga wutee sa bopp àpp tuub ndax da nga ca da nga ca yett kon tuub des koy gaawe cheikhul xadim nee na képp ku yéexe tuub xamal ni kooka kat fa mu mujj bu ko neex ndax ci torox tàng lay mujj ci gàcc lay mujj ci yàlla baxoog boppam lay mujj ànd ak texee bi ak xol boo xam ni dafay sakk dafay ancré ba mu baax bu ca mën a dugg yàlla nañ ca yàlla musal jaam yàlla yi ne tuub bu sell te ngeen sàmmante sart tuub ya suñu borom bi tudde tawbatan nasuha comme ni ñu ko waxee ci alquran ci laaye boobu ñuy wax yaa ayyuha alladina amanu tuubu ila allahi tawbatan nasuha da ngeen sax ci tuub googu te tuub nag balaa muy doon tuub bu sell laa budde sart tuub yooyu ñu jungoon yépp mën caa daje bu fekkee ni bàkkaar la nga summeeku ca bàkkaar booba bu fi bàkkaaru jëf la nga summeeku ca bu fekkee ni bàkkaaru baa la lu la digal nga bañ koo def nga sax ci def ko bu fekkee ni bàkkaar la bu aju ci xaqub jàmbur nga delloo xaqub jàmbur loola yépp lenn la ci sarti tuub bu sell lenn la ci sarti tuub bu sell moo tax cheikh mahadim di wax ba tey nii wa min shurutiha nadamatun ala ma faatahu min al maasi musjala indi charte yooyu yépp nga xam ni dafay aju ci tuub bu sell dafay màndargaal tuub bu sell kon tuub leen ci yàlla te ngeen am ak kóolute ni tuub ci yàlla kat danay déjjati bàkkaar ci nit ki dana far bàkkaar ya aju ca moom yépp ak lu bàkkaar ba war a lu bàkkaar ba mën a toll bàkkaar lu mu toll ëppul jéggalu suñu borom bàkkaar lu mu lu mu mën a toll waru ko tax nga bañ a jéggalu suñu borom ndax yàlla subhanahu wa taala mi ngi wax ni qul ya ibadi alladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaxfiru dunuba jamia innahu huwa alxafuru rahim yéen ñi nga xam ne da ngeen def bàkkaar ba jàpp ëpp naa jéggale yéen ñi nga ne a toll ak lu mu réeréer donte daa fees diggante asamaan ak suuf yàlla nee na bul naagu ci jéggalu boo ma jégguloo bu ci man ko bu wér bu boobaa dam ma jéggal la jéggal goo xam ne mooy gën a ëpp jéggal bàkkaaru bokkaale yàlla dina ko jéggale bàkkaaru rey nit bàkkaar yaale bàkkaar bu mu mën a doon lépp muy bàkkaar donc nit ki daa jëf daa def lépp loo xam ne dafay dugg ci kabaayir bi nii li nga xam ni am na ñu ne juróom ñaar fukki xeeti bàkkaar la bàkkaar yooyu yëpp bu ci doom aadama saxee dundal bu doon jub dundal mu tuub ci yàlla tuub bu sell yàlla nee na dana ko jégal yàlla nee na dana ko jégal la taqnatu min rahmatillah ብለናጉነት ሲባካሪ እንዳይ በእንገን ያካር yalla du len du len jéggal yalla la xam mom suñu jéggalé mo gën len tuuf la ngeen def ci ay bakkar la xam mom ci nangu tuuf mo gën reey lo tuuf la nga xam ni def ngeen ko ci ay bunte motax yeen bi sallallahu alayhi wasallam di fét jëli mana aaya joju mu wax ni ci ni borom kat wax na ci hadithul qudsi ne ya ibn adam innaka ma da'awtani wa rajawtani ghafartu lak yow dama adama kat boma ñaanee yaakaar na tàllal ma fay loxo ma jéggal la ak loo mën a def ci bàkkaar sama yoon nekkatu ca yow doomu aadama kat say bàkkaar bu tolloo yoon ak niir yi ci asamaan bu wéyoon fees suuf si ba jote niir ya nekk ca kaw asamaan topp nga fàkku ci man ma jéggal la bu boobaa dinaa la jéggal sama yoon bu ca nekkati bu boobaa dinaa la jéggal te duma ca faale ci dara yow doomu aadama boo ma indi loon boo dajeeg man bis penc تفكني يعني سيف الأدنى أكبرك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا وسيف السبسب تجي في بكار وإلا بدر من فكني بزير في يتجب فكني بقال من